asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar leen ndokkeel sëriñ Cheikh maa ngi leen nuyu baax di la ziar di nuyu mbooleem waa daayiratu muqaddamatul xidma di ko teg ci loxoy afiya ak mbooleem mbokk yi nga xam ne ñu ngi taxawee liggéey bu am solo bi di ziar ak ñaan bu baax Mawlana Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla gën koo sàmm gën koo dëgëral di nuyu mbokk jullit yëpp yi nga xam ne ñu ngi ànd di teewlu jataay yi xam-xam yi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci jumaa ji di ko dundale weeru koor jërëjëf sëñ bi ci nuyoo bu am solo bi kon dañuy njëkkee ci laaj bu njëkk bi dafay laaj ne li yàlla sunu borom di wax ne huwa alladi anzala alayka alkitaaba minhu ayatun muhkamaat hunna ummul kitaabi wa uxaru mutashaabihaat muy laaj laaya jooju lu muy firi eh, li ci borom xam-xam yi wax de mooy sunu borom nee na moo wàcce ci yonent bi alayhi salaam alquran am ci aaya yoo xam ne la muy tegtalee lu leer nañ la lu leer nañ ñi la amul mel lënt nee na yooyu nag mooy cosaan bi mooy yi nga xam ne ci lañ war a dellu bu leneen amee am ci aayaat yoo xam ne nag dafa jamtal ay maanaa yu wuute yoo xam ne yenn yàlla rek xam lam ci jublu wala dañ koy delloo ci muxkamaat yi doon koo xam mu wax nag ne ñi nga xam ne seeni xol ak nifaaq daa nekk ñoom ñooy topp aayaat yooyu nga xam ne dafa jamtal ay maanaa di ca dang-dangi bàyyi fële ay leer yi nañ benn wuute di ko jéem a firi ci anam goo xam ne leeru leen waaye nag nit ñi nga xam ne dañoo dëgër ci xam-xam ñoom dañuy wax ne daal alxuraan li ci nekk mutashabihaat ak li ci nekk muhkamaat lépp ci yàlla bàyyi koo ñun gëm nañ lépp buñ xamee maanaam mi gëm nañ ko buñ xamul maanaam mi gëm nañ ko xam ne yàllaa xam ci jublu waaw ah, loolu day wax ne foofu la julli war a nekk waaye am na ci alxuraan loo xam ne nit ki mën naa bañ a xam mi teg ndax yàllaa ko bëggee noonu lu mel ni xuruf yi nga xam ne moom lañ nekk di ko daggate ci njalbeenu ñu it al xuruf muqatta ci njëlbeenu yenn saar yi la ci yàlla jubluwum rek moo ko xam ci dëgg-dëgg ak yu demee noonu yooyu la borom xam wax ne nit ku sax ci xam-xam te dëgër ci xam-xam du ca xuus waaye da koy day nangu nag yàlla bàyyi ko yàlla mi ko ëdd nag am na lu mu ci jublu donte xëy na seenum xel ñu lot na jàgg ñi nga xam ne nag seeni xol am na lu ci ne ñoom ñooy ñeenti yooyu di ko jéem a ak sax di jéem wax ne alxuraan daa wuute wala am na lu ci nekk loo xam ne leeru fekk yàllaa ko jublu loolu lañ dégg ci ay wow sëriñ Cheikh. jërëjëf sëriñ ci danañ ko digal mu woor ak ndax su wooroon ba ci biir weeru koor mu yëg ne léegi nekk na mu kàllaf dañ koy digal mu woor wala déet ak wooree dana ko doy wala déet xam nga woor daa am ay charte yu tax mu war nit bokk na ca albuloo mooy nit ci doon mag ci madhabu yom malik dañuy wax ne koor warut gone te deesu ko ko digalit maanaam ko ci gaa ne dañ koy wóotale ak julli mi nga xam ne moom yonent bi salaam moo wax ne bu a gi amee juróom-ñaari at tabbee ci juróom ñaareelu atam nañ koy digal julli boo amee fukki nañ koy bàcc bàccal ngir mu julli ndax mu tàmm ko ñoom dañuy wax ne julli ay baamu ay yoon ci bis bi buñ ci tàggatul nit ki mën na ko bañ a tàmm koor nag demewul noonu bi ci des it dañuy wax ne li gone soxla ci yaramam woor mën na ko néewal doole moo tax duñ ko digal woor ndax day mel ndigal li mën naa bañ a bari njariñ waaye nag te borom xam yi wax loolu ne nañ bu gone gi bëggee woor te lor nekku ca dee su kooku tere ndax nag jamonoy saxaaba yi bari na ci ñoom ñoo xam ne seeni gone dañ doon woor gis ngeen Seydina Omar mag mañ ko andi mag ma wóor mu naa ko fii nga xam ne gone yi sax dañuy woor dañ ciy dégg ne kon gone daan nañ woor kon gone bu dëgër goo xam ne koor gi du ko lor su taamoo di ko def kenn du ko tere ndax tam tàggat ci lu baax la waaye lu mën a xew nag gone gi woor moom koorug naafile la ndax woor waragul su demoon ba ci diggu weer wi ak mage dab ko bis ya weesu woor waru ko woon kon du ko fay bis bi nga xam sax ci la ko dab màggi dab bu fekkee ne ginnaaw fajar la nga xam ne asamaan set na mu door a yëg ne mag la léegi kon bi woor di war booba moom woor waragu ko moo tax dañuy wax ne dañuy wax sax ne kooku bis boobu du ko fay bu fekkee mu woor mën naa wéy jàpp ndax naa file la bu ko fekkoon mu dogit mën naa continuer dogo day mel ne ku gis baax du ko fay kon bis yi ci des la la ko woor door a war waaye yi jot moom dañuy wax ne koor warugu ko kon amul lu mu koy fay lam ci jot def nag naafila la danañ ko gënal tiyaaba insha allahu taala. kii moom day laaj nan la nit ñi di wooree su fekkee ne dañuy tuddee seen i penkukaay dafa wute ak ndax koo xam ne ci waa Sénégal la moom mu dem Europe wala Amérique ndax bu demee day sukkandiku ñoom seen bis. wala waaw xam nga li ñuy wax wuuteeg mataalian yi daa bokk ci masala yi borom xam-xam wuute donte ci bu Malik li ci lëng siiw ci mooy dañ ne ñoom i'tibaaruñ ixtilaaful mataalian lu dul ni dañoo sore lool dëkk yu sore ba jéggi dayo waaye dëkk yu jege moom dañuy jàpp ne seeni mataalian yenn la ak lu mën a xew moom ixtilaaful mataalian am na xam-xam saxal na ko ba tey jii dañ lay wax ne la wi bis sàngam dana feeñ ba sàngam danañ ko mën a gis ak bët waaye barab sàngam ak barab sàngam duñ ko mën a gis ndax jant ba day soo maanaam weeru day suux balaa jant bay soo kon wuute am na su ko defee nag ñi bokki mataaliyaax wala ñu jegee ko mën nañu bokk di woor ñuy yëg weer woor waaye nag koo xam ne moom dafa jóge Sénégal dem ci beneen dëkk dëkk ba mu nekk moom lay xubayi xel ni ki nga xam ne julli tisbaar takkusaan timis du ne waxtu bi tisbaar jot na Sénégal naa julli déedéet fa mu nekk lay xool bu fa tisbaar jotee mu julli waaye bu fa dog jotee mu dog woor jotee mu woor buñ gisee weer mu ànd ak ñoom woor buñ gisee weer mu ànd ak ñoom loolu mooy li war bu fekkee dëkk booba duñ yittewoo weer ndax duñ ay jullit mu xool dëkk ba gën a jege ci dëkki lislaam yi foofu loolu lañ sant ab jullit waaye du wax ne ab dëkkam rek lay bàyyi xel te mi ngi wax nii mataalee mën naa wuute mën naa doon dëkk yoo xam ne dañ na lay wax ne la weer wa kat mënu fa woon a feeñ tey te beneen dëkk ba moom feeñ na fa su boobaa nag li war a jullit bi mooy fi mu nekk lay bàyyi xel ci koor ak kori ci dog ak jàpp dëkk bi mu nekk la ci bàyyi xel dañuy wax sax ne su umoon Sénégal dem ci beneen dëkk ñuy woor ba woor fan weeri fan te gisuñu weer yi ndax ñoom matalaguñ tey ànd ak ñoom matal du sañ du sañ dog naka noonu bu ñëwoon Sénégal ume feneen ñu woor ñaar fukk ak juróom-ñetti weer yu feeñ day woor yi te fay bis yi ko manqué waaye du sañ wéy di jàpp kon mbirum woor ak woor yi barab bi nga nekk moom lañ ci bàyyi xel. kii moom day laaj mu ne ndax jigéen bu ëmb wala jigéen yu nàmpal may na ci mu dog ak ndax bu dogee war naa fay wala kafaara da bokk. waaw dañuy xàjjale ci mësa bi la ñaari ñooñu dañuy wax ne bu dee jigéen ju toll ab diggante moom sañ naa dog léeg-léeg sax day war a dog maanaam bu ko leeree ne bu wooree doom ji loru wala moom mu loru wala tiis wu métt dal ci kawam daa war a dog su wéree fay buy fay nag fay rek ko war ndax loolu wére la bu fekkee nag xay na àggut ci loru waaye nag metti na ci moom it sañ naa dog su amee jàmm fay bu dee nag kii nàmpal nga xam ne bu wooree doom ji du am soow ti ba mu sow mën naa loru bu mu daawar a doon xanaa mu am keneen ku ko mën a nàmpalal te mu am lu ko mën a fayee su boobaa day wut koo xam ne xëy na woor waru ko wala mën naa boole woor ak nàmpal mu di ko fay wala muy wu di ko nàmpalal doom ngir mu woor bu loolu amut ngir doomam mën a dund sañ naa dog kooram waaye moom buy fay nag bis bu set day joxe set day joxe waale mudd dañuy xàjjale kii nàmpal ak ki ëmb ki ëmb moom dañuy jàpp ne ko wéradi la fay rek moo ko war joxe mu dugal ko waaye ki nàmpal moom buy fay day jox wàlle mu incha allah. kii ci ku yi nga xam ne day jëm ci sidit wala piqûre yi nga xam ne day jëm ci kaw yaram ak ndax am na lu leen wutal ñoom ñaar ci xeet yi yooyu. waaw piqûre day ci borom xam wax. pikiir bi ñuy tuddee ibra mu gaziya boo xam ne day taxaw taxawaayu lekk boobu la ñuy tere ku woor mu jëfandikoo ko moom day yàq koor bu amee wéradi gu tax mu jëfandikoo ko it day jàpp ne daa am ngànt dog kooram boo léegi mu fay amma pikiir yi nga xam dañ koy def ci sidit gi wala ñu def ko ci suux wi waaye nekkul mu gaziya taxaw taxaw taxawaayu dund lekk ak naan ay du tey nit ki bu ko defee day lekk day naan pikiir boobu ñoom dañoo wax ne du yàq koor ndax amul amul taxawaay boobu ay piccin bi nga xam ne suñ la ko joxee du soxla ngay lekk du soxla ngay naan loolu dafa taxaw taxawaay lekk kon jox nañ la nga lekk loolu mooy yàq koor loolu la ci waroon xam wax sëriñ Cheikh. mu may deret ak jël dara ci deretam ngir def ay analyse loolu it dañ koy yéegal ci li ñuy tuddee nàmputal dañuy wax ne nit ku néew doole nga xam ne bu nàmputaloo mën na caa miir miir mu yàq kooram kooko dañ koy sib ci moom ñu bëgg na bàyyi ba dog naka noonu jël deret moo xam da koy jël ngir di ko maye wala day def ay analyse moom itam euh, bu fekkee ne kàttanam may na ko man daal mën nañ ko jël ci moom deret du ko yàqal dara subaa sañ na ko du yàq koor gi li ñuy ragal rek mu miirloo ko tàggale ko sagoom ba àgg ci xaala boo xam ne mën naa dem ba kooram yàq waaye bu ci loolu amul nag kenn terewu ko waaye buñ ko ci ragalee nag sib kon moytu bañ koo def mooy gën. jërëjëf kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa amee woon bor bu mu war moo fay lu toll ci ñetti koor ak kafaara mu waroon def nag mu ne kooku lan mooy atteem ak lan moo war ci moom. kooku suñu Cheikh day jàpp rek ne amee na borom ñetti koor. yoo xam ne bu fekkee ne ñàkk fay ga sàggan moo ko teg bi bi barax lu ñëw mënoon naa fay waaye moo fayut bis bu leen di fay bis bu nekk dana ko boole joxe mudd ci am ñam ci ñam ndax dañ koy teg ay daan ngir sàggan bi bu fekkee nag ni ak wéradi la wala ngant la woon moo tax mënutoon a fay maanaam barax lu jot na mënta fay ngir wéradi walla ngir ngant yeneen su boobaa day fay kese day fay rek waaye bu fekkee gàttañ lu ak ñàkk ñàkk jox mbir mi yitte moo tax mu bañ a fay bor yi ba ramadaan ñëwaat su jàllee ba mu koy fay faw day boole fay ak lele joxe ñam waaye ramadaan mi moom kenn mënu cee woor weerin weer ramadaan rek la ñuy ji teew la ñuy woor maanaam mënta woor ramadaan ren di ci yéene gu jàll kon day woor ànd ak nit ñi koor gi teew bu koor gi jàllee nag mu fay yowee su te bu koy fay te sàggan waral ko bis bu set mu joxe waale muddu lu tolloog cinq cent vingt cinq grammes ci ceeb. jërëjëf sëñ kii moom lay laaj mu ne lan mooy àtte jëfandikoo pâte dentifrice wala tuufaay yi ñuy def ci nopp wala ci bët ak ndax bu fekkee ne ki woor da koo def yëg ci caf ci ak bële ndax dara war na ci wala déet. waaw ci musab bi dañuy wax ne toqal dara ci nopp ak ci bët ak ci bakkan. bu ko nit dafay mu àgg ci buleem day fay naka noonu dante filis ñoom dañ koy yëgal ci socc bu tooy dañuy sib nit di woor di soccoo socc bu tooy ndax bu ci dara rek cee jàll bàgg ci buleem day day day yàq koram naka noonu pat dante filis bi it bu fekkee ne am na lu ci rëcc ba àgg ci buleem day jàpp ne bis mu war na koo fay lu tey dana jàpp waaye day fay bis kon li yu mel noonu ay dante filis yooyu nit ki su jëfandikoo ba noppi rek mu def ko maanaam bu xëddee ba noppi mën naa raxas ay bëñam bam set te fekk jàpp jotagut bu baa loolu du ko gaar bu dogee ba noppi du ko def waaye yaakaar du soxla ci diggu bëccëg bi ndax moom ngir dindi aw ñam buy des ci ginnaaw boo lekkee moo ko tax a jóg daanaka kon nit ki mën na koo def ci waxtu woo xam ne terewuñ waaye jëfandikoo ci bëccëgu ramadaan moom dañ koy sib ndax dafa wóoru waaye nag bu yàlla dogaloon mu jëfandikoo ko te dara jàllut boobaa it koor ko baax na waaye bu dara jàllee it day yàq koor naka noonu toqal yooyu ñoo yëpp bu la leeree ne dara jaarut àggu ci booli gi koor ko baax na waaye bu àggee ci booli ba nga yëg ko moo xam ci bët la jaar wala ci bakkan wala ci nopp bis booba da fay te du tee da nga jàpp la ci bis ci yàq waaw ci masab bi dañuy wax ne dañuy sib faj bañ bu wéradi ci bëccëgu Ramadan dañ koo sib ndax moom itam dara mën naa jóge ca la koy faj jàll waaye dañuy wax ne bu dara jàllut nag koor gu yàqu waaye lu jafe la di faj bañ ci bëccëgu Ramadan ba noppi dara jàllut saa bu dara jàllee rek fay daay day war moo tax dañuy wax ne yu mel noonu ci gën bu ko nit ki mënee def na ko def guddi bu dogee allahumma docteur buy faj guddi amut te tànk metti metti du metti de ba mënu ko mun suba ngant la nga dem faju ji bu yàlla dogalee am lu jàll mu xam ne dog dog la ngant la day fay bu dara jàll tit mu xam ne koor gu baax jërëjëf waaw xam nga nit bu tàggoo sagoom dañ koy yéegal ci xëm bu fekkee ne diir bi yàggul te fajar bokku ca bu yàq koor gi maanaam waxtu yi nga xam ne ci la war a jàpp yéene bu fekkee waxtoo mi nga ànd ak sa waaye ci bëccëg bi nag lañ ko def ay waxtu mu dañ su boobaa koor gu baax na am bu fekkoon tey dañ koo def li ëpp ci bis bi wala mu yóbbaale dara ci fajar waxtu yi nga xam ne ci lañu war a jàpp waxtu woowu bi ñu jàpp di jot fekk na mu tàggaw sagoom kooko day fay bis boobu ndax kooram bis bu baaxul kon yu mel noonu it di moytu di ko def ci bëccëgu ramadan mooy li gën allahuma mu xam ne du yàgg mu dellu siwaat te eh, jamono yi mu koy def moom fekk na jàpp weesu ba nga xam ne fas na yéene kooram mu na ko kii moom day laaj mu ne fekkee ne dafa am ëmb boo xam ne dafa toll ci ñetti weer yàlla dogal mu faatu wala daal matagu daal mu faatu ndax buñ ko dee denc dañ koy denc comme liir bu juddu mat sëkk wala nuñ koy def waaw ci mazhab bi de li wax mooy seqat mooy lu juddute matul ñoom dañuy wax ne kenn du ko sang kenn du ko sang dee su ko jullee danañ raxas deret ja laxas ko ci ab morsa rek denc ndax kooku ñoom jàppee guñ ko nit loolu mooy mazhab imam Malik képp ku juddute matul noonu lañ ko jàpp kii moom da ne lan mooy àtte koo xam ne dafa wax soxnaam na ko boo génnee ci kër gi yàgg say bagage loolu mooy sam passé waaw moom lan la wax soxna am na ko déglu bis bu génnee bagage yooyu soxna tas sëy ba tas na saa bu nit waxee loolu soxna am moom ab da ko aj ci mbir mbir mu ko aj nag saa yu amee rek sëy bi tas kon soxna su bëggee tas na jël ay bagage am génn saa bu génnee kër gi sëy bi tas kii dafa laaj ne ndax kabar yi ñuy def ci ñaari rakk yi mujj ci julli bi doon ñeenti rakkaat dañ leen di yàllu ni ñuy yàllu li ñuy jàng wala déet jëmmi kabar kabar ci julli kabar yëpp yépp dañoo bëgg ñu di ko yàllu ilimaan lañ bëgg muy béral ay kabaram bu dee maam moom wala kenn koy julli ñaar lañ bëgg mu béral kabaru armal ak sëlmal yooyu lañ bëgg ñu béral ko waaye ci des yëpp dañoo bëgg aji julli ji yenu ko xanaa ab jottalikat bu fekkee ilimaanam kàddam xubut am koy jottali moom mën naa yëkkati kàddoom ginnaaw ilimaan waaye ñi ci des ñëpp allahu akbar sami allah liman rabbana wa lakal hamd yëpp dañoo bëgg ñu di ko yenu ilimaan lañ bëgg muy wax ca kaw ak bu jottalikat amee nekk aajo kàbbaru armal ak sëmal na moom ñëpp lañ bëgg ñoo ko ci kaw kii day laaj mu ne commerçant boo xam ne nee na moom bu dee génne azaka da koy xayma ci njëggam jënde woon léeg mën naa am marchandise mu yokku waaye nee na buy xayma njëggam jënd wu rek lay xayma muy laaj ba xam ndax loolu dana baax wala déet ak su fekkee ne baaxul at yi mu si jotee génne azaka ci anam googu lan mooy àtteeg loolu mu def ko. waaw xam nga ci asaka bu dee yaxantu dañuy wax ne capital bi ak bénéfice bi yépp la asaka war. ki amoon benn capital liggéey ci at bi at mi waaj jeex alal yu bari juddu si ca nga xam ne bénéfice bi bari lool moo tëggul at sax asaka da ciy war bu asaka waree ci capital moo tax dañuy wax ne borom xooxee bu nit di xayma am njaay njëg gi mu koy jaayee lay xayma njëg gi mu koy jaayee la war a xayma ndax bu ko jaayee njëg gi mu ko jënde woon fekk mu yokk mën na koo xayma ndax junni la ko jënde woon waaye mu ngi koy jaayee junne ñett téeméer mu xayma ko léegi junni génn asaka ji ci ngoon gi mu jaay ko nit ñetti téeméer yooyu mu jaay asaka génn ji te war na cay génn bi loolu mu wax noonu li tax mu jafe-jafe bu wàññi ko woon bu fekkoon da ko jënde junni ginnaaw bi mu daanu bay jar juróom-ñetti téeméer jàpp mooy dana ko xaymaa junni bu koy jaay bu ko bu koy génne asaka bu daanu woon moo tax liñ santaane mooy li nga koy jaayee tey ci jabi nii loolu nga war a xayma booleeg xaalis bi nga am ak bor yi ñu la ameel te seen waxtu fay ko jot nga génn boole ko génne asaka génn ci bor yi nga xam ne yaa ko amee nit bu fekkee li nga amee nit ñi boo ko ci génnee la ca des du man ne sax asaka moo bor bi ay daal nit ki moom bu dee ab jaaykat di jënd ko jaay su waxtu asaka jotee day xool li yor ci xaalis xayma njaay mépp ci njëg gi mu koy jaayee tey noppi ak bor yi ñu ko ameel te waxtu fay ko jot te xam na ne ñu ko ko ameel danañ ko fay dañuy ñëw bu demee danañ ñëw bu dajalee loolu lépp génn ca moom ñi mu amee li bor la ci des mooy mooy mooy alal ji su ma tey nisaab mu génne ko yow lu gën a gàtt ci génne asaka nag mooy alal ji nga diviser ko 40 lu mu la jox mooy as mooy mooy xasee man nisaab nisaab nag fi mu ne nii jege na 3 millions yi dana tegal dara incha fii moom day laaj moo ne lan mooy àtteb koo xam ne sikki sàkk da koy faral di gaar lu bari su dee julli léeg-léeg du ndax ñaata rakka la julli wala bu dee jàpp muy sikki sàkk toj na wala tojul mel noonu waaw koo xam ne sikki sàkk da koy gaar lu bari de dañ leen di tudd ñooñu bu fekkee ci julli la wala ci jàpp dañ koy wax ne ko li ngay sikki sàkk bu ko faale bi maanaam saa buy sikki ñett la wala ñeent na jàpp na ñeent la buy sikki sàkk benn wala ñaar day jàpp ñaar la waaye nag su jullee ba sëlmal na sujjóot ba'da salaam ngir toroxale ku seytaan ki nga xam ne nag sikk nekkut jàngoro ci moom maanaam léeg-léeg la koy gaar kooku dañuy wax ne saa buy sikki sàkk day jàpp li gën a néew buy nattale ñaar la wala ñett ñaar lay jàpp amaa kii nga xam ne nag mustan kex lañ koy tuddee mooy da koo da koo dëkkee nga xam ne bis bu set dana ko dal donte benn yoon la kooku daa wéradi bu sikki sàkkaate bu jàpp lim si na jàpp lim bu gën a bari te bu jullee ba sëlmal sujjóot ba'da salaam kii moom day laaj mu ne lan mooy charte mu kàllaf maanaam yan mooy daje ñu ne kii mu kàllaf la mu kàllaf nekk mu kàllaf euh, mu kàllaf sëñ Cheikh am na ñetti charte yoo xam ne mooy daje nit ki nekk mu kàllaf ñett benn bi mooy na ànd am sago am xelam nit bu wéradee wéradi xel yàlla tëggul ko jëf ñaareel bi na doon mag na àgg ci appub doon mag gone nekkul mu kallaf ñetteel bi na yëg ne woote bi lislaam ak seen ne ñetti sàpp yooyu la la la mu mu kallaf waa joo xam ne tey bu fekkoonte ne am na ci àdduna mu ngi ci xunt yoo xam ne mës ta yëg ne lislaam am na kooku du mu kallaf kooko day mel ne ba tey ci ahlu fatar la bokk yëgut ne am na yonent bu yàlla yónni woon sallallahu alayhi wa sallam xëy na loolu moom daanaka bëreetul bu amee it bëreetul waaye ñaari sàtt yi moom ngir nit nekk mu kàllaf day ànd akum xelam ku xas wéra di wéra di xel at yu mën am ci àdduna nekkut mu kàllaf gone goo xam ne nag baaleexagut kooku du mu kàllaf buluuxu nag am na ay mandarga duñ koy xamee bu dee ci mësëb bi dañuy tudd juróom yoo xam dañuy wax ne ñett yi góor ak jigéen mooy saa bu saxee kawari naq kawar yu yooyu mat na saa bu génnee man moo xam ci nelaw walla ci ak yëg su boobaa mat na baaleex na su amee fukki at ak juróom-ñett lu may masu yow man ñett yooyu góor ak jigéen ñoo ci yem ak yeneen ñaari sart yoo xam ne ci jigéen lañ ko sàrt mooy bu gisee baax wala mu ëmb donte am ñu wax ni ëmb gi génn man moo koy jiitu mu door waaye am dañoo wax ne ëmb ak gis baax mandarga la ci ne bu ko jigéen da dafee euh, léegi nekk na mu kàllaf am na it yu ñu tudd ci ci ngër mi ne mandarga la ci ak magi góor su dee ba ay poqtaanam di am xet gone góor goo xam ne mesure gu poqtaan du am xet tàmbalee am xet rek na xam ne bàyyi na naka bu demee kàddu gi diis dëgër nga xam ne nekkatul kàddu gone loolu bokk na ci yi ñuy xamee Eh, mandarga ne moom nekk na mag léegi yooyu daal lenn la ci yi nga xam ne danañ ko xamee ci ci ci mazhab bi waaye charte yi moom ñett yooyu la benn bi daanaka amutu solo waaye ñaari mooy faw mu ànd akum xelam faw mu baalix ku ànd ku nekk baalix ci yi ñu wax nii te amu am xel nekk mu kala yi ñu santaane yépp waru ko ndax nekk mu kala waaye bu xasee nekk mu kàllafit eh, ci benn ci ñu wax maanaa mu kàllaf gi mooy yi ñu tudd fukki at ak juróom-ñett day mel moo ci mujj maanaam bu saxee kawar yooyu ñu wax wala mu génn màndi wala bu dee jigéen mu gis mbërëg wala mu ëmb yooyu yëpp bu amul mu amee fukki at ak juróom-ñett bale doonte gisul yeneen màngal jërëjëf sëriñ kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa fekk imaam di julli suba nekk ci sujjóot bu mujj bi ci ràkk bu mujj bi mu ne kon ndax kon dagan na mu dem julli ci fajar ñaar rakkay fajar loolu julli suba. li ah, nga si waxee bi raw na hmm. kon mën naa bañ a ànd mu dem julli ñaar rakkay fajar loolu julli suba. xam nag yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li mu santaane woon mooy bu ngeen di julli ji na ngeen waaxu ci fulla waaye bu leen daw bu ngeen àggee lu ngeen fekkee ngeen julli ko lu ñu leen rawee ngeen mot dañuy wax ne nit ki bu fekkee. fu mu mën a fekk ilimaanam fu mu ko mën a fekk na kàbbar tàbb ci julli bu fekkee amul ci lu mat ab rakkaa nag bu imaamam sëlmalee mu jóg julli kon foofu ñoom kenn ndax fekk nañu julli suñu ko fa bàyyi di def tahiyatul masjid wala muy def ñaar rakkay fajar waaye day dugg ci julli gi ànd ak imaamam doonte amu ci rakkaa ndax am na si borom xaw ñu wax ne kàbbaru armal képp boo ko defee ci julli gi am nga neen ngir bàyyi xel wax jooju day tax na dugg ci julli gi donte ci mësa bu jàpp na ne amul julli mbooloo waaye na dugg ci ànd ak ilimaan bu sëlmalee mu jóg julli jullee ndax dañuy wax ne boo fekkoon sax ñuy julli farata boo ci yéenewaalee naa fi da koy am masante boo ñëwoon fekk ñu taxawal fajar ñaari rakkay suba te jullee boo ñaari rakkay fajar da koy yéenewaale ci biir boo ko ci yéenewaalee am ko ca kon moom na na def noonu yéenewaale ko ca waaye nag di beru di julli ñaar rakkay fajar fekk ilimaanam sërmalagut loolu du ndigal moom kii moom lay laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit bu góor mu jëfandikoo alalu magam ju jigéen wala rakkam ju jigéen joo xam ne day liggéeyee wàllu jokk kawar waaw ah, xam nga nit bu nekkee mbokkam moo xam ne day jëfandikoo lu dëgganul la jiitu ci lu ko war mooy al amru bil wa nahyu anil munkar fekkee mbokkam moomu day jokk kawar jokk kawar dafa xaraam yàlla dafa rëbb ki koy def ak ki koy def lu ci làmm ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam laana allahu waasilata wal mustawsila mooy jigéen ji lett di jokk kawar jokkal nit ñi seeni kawar mustawsila mooy ki koy def lu ñëw joxe xaalisam ñu defal ko yàlla rëbb na ñëpp te rëbbum yàlla nag dañuy wax ne luñ ko wax rek bàkkaar mag la kon li ko waroon mooy tere ko waaye saa bu jëlee alal ju xam ne ci la ko jëlee loolu moo ngi koy encourage ci nekk kooku defut li ko war amma bu doon benn jàmbur boo xam ne moom sequñ dara mu dajeeg moom fenn mu yëkkati alalam jox ko ci loola kooku sañ na ko lekk waaye moom mii daa séq mbokk mi loo xam ne lekk alalam ci anam googu moo di ne li ngay def lu baax la loolu lay teg moo tax képp koo xam ne tey dangaa doon kilifa am kilifteef ci nit muy def lu bon bu ca jëlee alal julewut sañoo ko lekk ndax sag lekk ko mooy nekko li ngay def lu baax waaye bu daje woon ak jàmbur boo xam ne nag sequñ dara ci yooyu yëpp bu ko joxee sañ ne ko lekk ndax dañuy wax ne alal du caa génne jëmmi alal ji mooy araam alal nit ki ni mu ci jotee ci lay araam mbaa mu ndax alal moom ab junni ci misaal bu ñu ne woon junni bi dafa araam mooy ni ñu ko fàggoo moo xaraam waaye junni bi mu kenn ko lakk kenn ko gas suul dañ koy jariñoo léegi nag moom ñu ko fàggu ci anam gu dëgganul moom sañu koo jariñoo ak njabootam sañu koo jariñoo ab sëriñam sañu koo jariñoo waaye bu demee ca daara ja wala ci jàkka ja wala moo dem ci dispensaire ba fekk ñu new doole mu jox leen ko sañ nañ ko lekk ñoom kon yu mel noonu it loolu man man ta bàyyi xel ki nga xam ne yow sa mbokk nga am loolu war ci moom digal ko baax ak tere safaan bu dee def ab safaan di la ca may ngay lekk mooy yaa ngi koy yaa koy jàppale ci safaan te dimbalante ci bàkkaar rek bàkkaar la sëñ kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteb koo xam ne dafa for ak kurus di ko jëfandikoo di ca wirdu ndax dina ca am tuyaaba ci wirdu gu muy wirdu kurus boobu la déet. waaw bu ci yéenee ndax xam nga for la am ay àtt ci lislaam ci for lu am solo dañuy bëgg mu xam xamle ko ci barab yi ñu ko yaakaaree ci diir yi ñu wax bu diir yooyu jotee nag sañ na ko jariñoo sañ na koo saraxeel kooka sañ na ko saraxel boppam waaye lu ci mën a xew day yéene saa yu borom feeñe mu fay kon moom bu ci dee wér ànd ak yéene saa yu borom feeñee mu fay ko ko bu ko ko mayut su boobaa incha allah lam koy jëriñoo mën naa am njëriñ li bon daal mooy mu di ko nëbbu nga xam ne fas yéene borom ba ko gis waa nag jëfandikoo alal jàmbur la te yàlla dee su ko topp ci loo xam ne ak mooy ko la. jërëjëf sëriñ bi kii day laaj ne. lan moo tax yenn wayjur yi di tere seeni doomi góor ñuy takk yenn ci xeeti jigéen yi ne doo takk xeet sàngam man ndax loolu lislaam moo ko jàngale sëriñ euh, Seex lislaam de lim jàngale mooy bu nit dee wut soxna di góor nañ xool ci moom ñaar nañ xool diineem ak jikkoom su baaxee nañ ko may soxna bu dee jigéen gis na ci xool ñeent waaye ba ca am solo mooy diine ja danañ xool taar ba di xool alal ja di xool juddu ba waaye nee na diine ja am solo kon yooyu ci la lislaam teg ngir ànd diggante góor ak jigéen am na nag yoo xam ne ay aada la yu fi yàgg nag yenn yi lislaam fi la ko fekk xeex na ko ba sonn waaye daa mel ni jëlee ko fi jafe mooy nit ñi moom dañoo séddale seen bopp ci ay catégorie ci ay jamono ay ñuñ moom ak ñu nekk jàpp seen bopp ay sang ñoom la woon ci ay jamono ay ba léegi ay borom yi xaalis ak ñu néew doole lañ ñenn ñu nekk dañuy xeebandi seen biir waaye du loolu du lislaam waaye nag ab sëyit nag bëgg nañ ñaar ñiy boole ak nawlonte am seen diggante nawlonte gi mooy ay jullit lañ nawlonte ci diine mooy seen seenu jëfandikoo diine bañ a soree maanaam nit koo xam ne diine da koo ñor ba dara ci ndigal yi ko xëtt ak koo xam ne maanaam buy jëfandikoo diine lu gaar lay doon ñaar ñooñu wari su leen boole ci sëñ waaye bu dee ñoo xam ne ñoo bokk na bëgg diine lislaam foofu lay xool ak nawloon bu ko defee nag yi des moom ngir ab sëy mën a ànd mën a neex ñi ko séq kenn bañ caa xeeb morom di baax na ci am na loo xam ne bu ko lislaam terewutit boo ko defee ngir ne man lislaam tërëwuma ko da nga dem ba ci biir ngi séddoo ndax dañuy dem mu yàgg duñ mën a déggante xam nañ ne yonent yàlla muhammad alayhi salaam mayoon na mbokkam zeynab bintu jahsh radiyallahu anha zeyd ibnu xaarisa waaye daa mujj rek wax na ko ba tey am sika alayka zawjaka wattaqillah soxna si am lu mu gis ci zeydu lum ko jàppe ba sunu borom moom mu jox ndigal yonent bi islaam ne ko na ko wàcc sant yonent bi islaam mu jël ko bokk na ci lam jàppoon taban nii ndax da koo jàppoon doom daan nañ koo ay jamono Zayd ibn Muhammad kon dafa mel ne aada yu dëgër la nag yoo xam ne du lislaam moo ko santaane waaye daal baax na ñaar ñi dencante ñu bañ a xeebante bañ a yabante ndax dana tax seenu sëy mën a déggoo ma naa am ñu mën a yàlla waaye bu xeebante wala yabante amee rek buñ doxee tuuti kenn ku ne tàmbalee gis sa bopp xëy na ñenn mag ñu yu mel noonu lañu ñu bàyyi xel du ne dafa xaraam wala dañ koo waaye ak déggoo ndax ñaar ñii boole ñu ne dañuy bëgg nu mu mën a yàgg moo ci gën waaye léeg boole yoo xam ne xam nga ne mënta yàgg loolu it bariwut njëriñ waaye nag du lislaam moo wax ne ay waaso sàngam waruñu leen njëriñ lislaam moom ay jullit la wax ay jullit yu am diine am jikko ñooñu la ñu war a boole. waaw jërëjëf sëriñ kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci kuy wàññi ci tukki muy julli julli naa fi waaw dañoo sant kii wàññi muy naafila xëy na nag am na woyofal ndax mën naa naafila ci kaw daaba ji bu dee oto lu dugg mën naa naafila ci biir oto bi fu oto bi jëm mën naa jëm foofu loolu sax na ci sunna euh, kon wàññil nañ aju tukki ji julli ñeenti rakka mu di ko julli ñaar waaye nag dàqut naafila yi yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa ci ay tukkeem dara naafila waaye nag mën nañ koo woyofal naafila gi mën na ko def ci kaw daamar ji mu nekk bu dee fas la war bu dee oto dugg te it bu baa sartatuñ ci moom mu jublu xibla fu daamar ji jublu rek foofa lay jublu kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa sangu cangaayal aju ndax dana wér mu mën caa julli ca cangaay loolu te du jàpp bu ca jàppee njàpp moo xam ne farata la ci yéene mën na ko waaye bu dee sangu gi rek la cangaay loolu naafila la te jàpp ngir julli ajuma farata la naafila mënta wutu farata waaye farata moo mën a wut naafila bu doon cangaayal janaaba moom mën naa wuutu cangaayal ajuma wuutu njàpp mi waaye cangaayal ajuma rek sunna la kon bu ca bëggee julli ajuma da jàpp njàpp moo xam ne da cay yéene euh, laab da ci yéene laab su boobaa mën na caa julli insha allah kii moom day laaj mu ne lan mooy àttal jigéen joo xam ne boroom këram da koo sàkk mu bañ daan ne moom daal li fi bàyyi rek mooy ak njabootam waaye sëy moom waxatu ci dara. waaw bu fekkee noonu la deme de def na lu ñaaw ndax yonent bi alayhi salaam wax na ne saabu boroom kër soxlaa soxnaa mu bañ guddi googa malaaka yi dañ koy fanaane rëbb kon bàkkaar bu rëy la soxna boroom këram soxla ko mu ngànt ci lu lu ngànt ci lu lu ngànt amma bu àggee ci nañ ne ko ay doom ak bàyyi way soxlaatu sëy bi gàddu ga muy àddu àqee na ñaan baat sëy ba tas mu gën ndax sëy mën naa tas fekkee déggoo nañ mu des mu des ca kër ga di wax ay doomam fekkee may nañ ko waaye ne ci sëy bi te joxoo sëy bi àqam loolu mën na indil jàmb ay jafe-jafe boo ëllëgee ndax àq yu rëy la yoo xam ne suñu borom da koo sàmmulu bëgg bu ëllëgee it dana ko laaj jàmm kon nekk ak sa borom kër di gàddu àq ci moom loolu wóorul lu wóorul kon bu ko mënta wéy rek mën na ñaan baat bu ko mayee baatam bu toog mu toog ngir njabootam waaye ngir bañ a gàddaaq waaye feek mi ngi doon soxla moom na xam ne wartee fii soxla la koy war suñ ko bu tëggil kii moom day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne jinne walla rab la koo dugg ci xelam daal jamono yi muy julli ba li muy julli xamul mu ne ndax kooku war naa sujjóot wala déet euh, li ñuy wax foofu mooy lu mu def ndax ndax ndax dugg gi ko jinne ji dugg daa tax mu yokk ci julli ji wala mu wàññi foofu la xool bu fekkee yokkut wàññi bi moom sujjóot waru bu yokkee ci julli gi rek dana sujjóot bu ci wàññee dana sujjóot amma bu demee ba tàggoo ak sagoom nga xam ne xamatu fu mu nekk moom day jàpp ne kooku julli gi da yàqu moom julli gi boo xam nit ki wante ko xelam julli ak ànd akum xel day tax ci la bokk sart yi la bokk bu ànd akum xelam bu dee nag ngir su gàtt la ko def dellu si xelam dellu si te defu fi luy waral sujjóot ba'da salaam wala qabla salaam kon sujjóot waru ko. Euh, kii moom day laaj mu ne ndax dagal na ci koo xam ne ni day football bis yi nga xam ne da koy am ay match ñu bañ koo woor. liggéey bu dagan boo xam ne kenn wérante wu ne dëgënut nit ki di liggéey tax mu bañ a woor maanaa liggéey bu tegu ci yoon dañuy wax nit soo yoon di liggéey day woor su demee ba gis ne mënta wéy sañ naa doon bu mar àgg ci foo xam ne bu naanut ba wutul dana loolu day doon waaye du wax ne tey liggéey bi day metti su ma xëy du ma woor loolu suñu ci liggéey bu dagan boo xam ne kenn ren jóg football nag fii ma fii ndax ñi koy daganal dañuy wax ne bu ci am po nekkul bu ci carte nekkul wuñ ñi awra nekku ci jaxasoo góor jigéen nekku ci faat waxtu nekku ci subaa dagan ñi ko daganal loolu la ñu wax bu yëpp dàqoo kon loolu nekkul ngànt luy tax nit ñu ne ko dagal sa koor bu ci dog koor ngir loolu da nga fay da nga kafaara ndax day jàpp ne xotti war may daal am naa nag bu ci nekkoon boo mooy te mar dab woo xam ne bu naanut loolu kooku sañ naa dog korom ngir sooy ba kanam waaw day fay bis ni ki nga xam ne yeneen liggéey yëpp loolu lañ ci santaan jërëjëf sëriñ kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit su waree génne lu muy jotoo ci koor gi mu génne ko ci xaalis ak ndax mën naa boole lépp rek mu génne ko benn yoon su amoon ay fan mu boole lépp génne ko benn yoon waaw dañuy wax ne leele de li ci waroom xam-xam yi wax mooy ñam lay doon moom day sul génne xiima ji lañ wax maanaam ku génne mudd mudd ngay génne la ca gën it nag bis bu set nga génne waaye bu dajalee woon juróom fan daal di génne loo juróom fan yi ba tey baax na ndax léeg sax mu am njariñ ndax génne loo ab lim jox ko nit mu amal ko njariñ léeg-léeg bu dee benn mudd boo ko joxee it na ko bañ njariñ lu am sax wala mu bàyyi ba weer wi dee mu dajale lépp nga xam ne bu ko bu dee fanweeri fan dana jege fukki kilo ak juróom-ñeent ci ceeb bu ko génnee day mat ba tegal tuuti su boobaa mën na ko génnee benn yoon joxe waaye li gën te nag mooy saa bu xëyee mu joxe saa xëyee mu joxe waaye bu bàyyee ba weeru jeex mu dajale ko joxe koy dara nekk waaye nag ñam la ñuy génn. kii moom day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne du ab jullit jël alalam di ko dépassé ci loo xam ne lu baax la lu mel ki jàkka. waaw xam nga jëfalan suñu jëfalanteeg ñi dutu jullit ci àdduna lislaam dañu ko daganal laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum alxaan la mën nañoo jëfalante ñoom di wecc ko ay hadaaya yonent yàlla muhammad alayhi salaam yahood yi daan nañ ko kon kuñ ci may sañ nañ koo jël bu ñu fekkee ñu ne ci procès bi lislaam ñu jox lekk sañ nañ koo jël maanaam nag ñoom duñ ci am tiyaaba maanaam tey bu yéefar fekkoon ay jullit ñu tabax jàkka mu joxe ci alalam danañ ko jël def ko ci mën na ko jëriñ ci àdduna ndax dana tax jullit ñu maslaak moom bu dee ab mën naa tax di jënd ci ay marchandise am dee waaye nag du ci am tiyaaba moom tiyaaba ji nga xam ne bu doon ab jullit bu ko participer day mel na ku tabax jàkk am tiyaaba jooju moom du ci am tiyaaba waaye nag mën na ko jëriñ ci àdduna moo tax seen yu baax ñoom mën na leen jëriñ ci àdduna waaye du leen jëriñ yomal ndax yomal xiyam dee su fa jëriñu te gëm amut te gëm amut euh, kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit mu jënd ci barab boo xam ne dañ fay jaayee ay naan yu xaraam bitig boo xam ne day jaaye lu dagan waaye day jaayee la ay sàngara yooyu mu ne ndax mën na faa dugg moom jënd boisson dem yoonam. bu fekkee ne yeneen boutique am na yoo xam ne lu dagan rek lay jaay li jaadoo ci jullit moom mu dem foofu ndax loolu mooy li ko war bu fekkee nag benn boutique boo fa am te lépp lay jaay te moom aajo woon a jënd sañ naa dem jënd lam soxla lu dagan dem yoon waaye nag la gënoon moom mu am yeneen boutique yoo xam ne ñoom jaayuñ loola boobaa na fa bàyyi kay rax lu baax lu baaxut ndax su jëndee ci moom mi koy jàppale ci kanam kon dem ci kii jaay lu dagan rek mu jënd ci waaye bu fa sësee nag bàkkaar du bàkkaar bàkkaaru jëmm dee su ko sëf keneen moom miy jaay lu xaram mu am bàkkaar bi kon yow boo dikkee jënd fa lu lew la ca def sa yu nekku kii nee na moom dañ ko yónnee benn somme ci alal jaare ko ci jumtukaay yi ñuy yónnee xaalis waaye na xamul ki ko yónnee kan la tey mënut a jokkoo ak moom mu ne kon ndax mën na koo jëfandikoo yéene ca ne saa bu borom feeña mu delloo ko ko waaw day jàpp ne lu ñu for la rek mën naa am ku doon yónnee jaawale mën naa am sax ku waa ko jublu da koo bëgg a joxe te bëggul ko xam ne moo ko joxe waaye ginnaaw léeru ko moom bu gëstoo gëstu mënta am benn bunt boo xam fa mu jógee na ko jàppe lu mu for lu for nag boo koy jëfandikoo bu la neexee nga saraxeel ko boroom bu la neexee nga lekk ko ko jariñoo ko yéene saa yu borom feeñee nga fay waaye loo xam ne nag xamoo ba xam borom dana feeñam déet li gën a dal xel mooy nga saraxel ko ko moom nga xam ne mën a nekk tuyaaba ji moom lay dellu ndax boo ko lekkee yow yéene wala su borom feeñee nga fay ko su fee ñun nag day mel ni àq la joo xam ne xamoo man ngaa dem ba génn àdduna mu ñëw di mu door a feeñ kon saraxel ko ko mu ëpp mu gën a dal xel donte nag borom xam ne neen sañ nga ko lekk yéene ci saa yi borom fañee nga fay euh, kii moom day laaj mu ne ndax koo xam ne dafa am tawati asma ndax mën naa jëfandikoo pompe yi nga xam ne moom lañ koy jox ak ndax bu ko jëfandikoo dana am jeexit ci koor gi wala déet waaw li boroom xam-xam wax de mooy pomp asma day yàq koor ndax gaz boobu dugg ci nit day dem ba ci biir day jeexital ndax saxaara ko gën a woyof te saxaar day dog ko saxaaru cóolos cin saxaaru cigarette day yàq ko ñoom ci lañ ko boole waaye nit ki nag bu asma dafa wéradi dafa wéradi kon su ko kirisu asma dabee sañ naa jëfandikoo pomp bi dog kooram ngi mel ne ku wéradi ba jóg ramadaan dem jox ko lekk wala jox ndox mu naan ngir faju su ëllëgee mu mu fay bu ma nekkoon bu demoon nag asma bi àgg ci amul benn bis bu mu ko du daaneel nga xam ne moom bis bi set dana ko daane kooko day jàpp ne war wàcc na daa wéere di wéere di goo xam ne mënta ànd ak ko su boobaa moom dañuy sopp mu leele waaye fii léeg-léeg la koy daaneel su xëyee na woor su ko dabee mu dog su ko dëggul àggale kooram bis yi mu ko dab nag day dog kooram lekk lay des ci bis ba wéeru jeexee mu fay amu ci benn bàkkaar nag ndax wéradi la waaye nag jërut forcé jërul forcé wax ne comme damay fay du ma pomp damay bàyyi ba dog jot rek ndax loolu it léeg-léeg lor sa bopp la te lislaam day tere nit di lor boppam ndax yàlla mi santaane nga woor moo la sant boo woppee nga fay kii moom day laaj mu ne ndax koo xam ne dafa am tawati jalis nga xam ne ba léeg-léeg day dem ñu xoolaat deret ji mu ne ndax ku woor mën na koo def ak bu ko wooree bu wooree def day war a fay wala déet. waaw loolu la borom xam-xam wax de nee nañ jëliis deret jooju moom luy dundal yaram wi la aw ñam la wuñ defaat buñ def ci biiram moo tax ku ku dafa xasil kalaw yi ci ci koor bëccëgu Ramadan bis booba da koy dog su jàllee mu fay. jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne ndax dagal na ci góor su bëggee denc jigéen mu def listixaar ak nan la koy defee. waaw listixaara moom dañ koo santaane eh, sayiduna jaabir ma wax ne radiallahu anhu dañ ñu daan diggal ñaanu listixaara nit ñu daan dañ ko daan jàngal nit ñu daan jàngale saari alxuraan nee na yonent islam moo ne ku ci amati mbir mu yitteel mu bëgg a dugg bala caa dugg na julli ñaar rakka yoo xam du farata bu na ko jàng ñaanu listixaara ñaan la goo xam ne lañ koy wax yow sama boroom maa ngi ñaan nga dogalal ma lii may dugg bu gënee ci man nang ma ko yombalal te jàppandal ma su gënut ci man nang ma wëlbati te yombalal ma la gën ci man ñaan googu lañ bëgg mu def ko balaa dugg yi mbir mu mën a doon loolu dañ ko santaat nit ci mën na ko defal boppam mën na ko def lu nit moom ci sunna yu bay sànn bokk yim santaane woon saxaaba yi ne ñaan googu dañ ko daan jàngal jàngalante niñ daan jàngalante bu saa alxuraan ma saa wàcc kon lu yitteel loolu la kii moom day laaj mu ne ndax jullit ajum mën nañ koo def ci usine boo xam ne léeg-léeg ñu déplacé ak yan mooy charte ajuma yi daje ñu mën a julli ajuma ci barab. waaw bu dee ci barab moom ajuma dañuy sart na doon barab boo xam ne ña fa nekk dañ fa fas yéenee dëkk bépp barab boo xam ne ña fa nekk dañ fay nekk ak diir jóge fa comme màngaankat yi. ak léeg-léeg ñi nga xam ne ñu def ay campagne dem ba ci àll bi leen soldats yi di ko def fa juróom benn weer dafa seeni kaam foofa kenn dafa julaa ji ndax yéene wuñ fa dëkk bi ci des it nit na dëkk boo xam ne mat na ab dëkk nga xam ne doon xew dëkk ba ñoom danañ mën a jóg jàmmar waaye ñetti nit ñeenti nit bu ndajale woon dëkk ci as ñooñu duñ fa tabax juma kon bu fekkee nag ne usine bi ay dëkkukaay la dëkkukaay la boo xam ne li ñu wax daje na ci nit ñi fa nekk dañ faa fas yéene sax te lim yu mat na mën nañ faa defar jumaa di fa julli am maa nag muy tuxu tuxu loolu leerul ci man ndax jumaa moom day nekk benn barab ñu tabax dañuy wax ne dañuy tere jumaa mu yées li nit ñi dëkkee maanaam moom xëy na li ko li nga koy wut la jàkka rek bu dee jàkka lu ne mën nga koo defar mu nekk jàkka waaye bu dee jumaa dañ lay wax ne la li nit ñi dëkkee bu nga ko yées maanaam bu fekkonte ne waa dëkk bi ay tabax lañ dëkkee mën a wut mbaarum seng ne mooy jumaa ji faaw jumaa ji mbaar tabax lay doon kon kon bu fekkee lu mel noonu la nga xam ne dëppoo naag li ñu wax te ña fa nekk sax fa mbooloo mate ko mën nañu julli ajuma kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci jullit bu jigéen mu def li ñuy tuddee pose ay xef ak yu demee noonu ak ndax yooyu bu ko defee su jàppee njàpp ma dina wér si ay xef daganul ndax jokk kawar ci biir jokk kawar la ko war a wax dugal te yàlla ci làmmiñu islaam rëbboon na ñi nga xam ne dañuy jokk kawar ak ñu koy jokkul ndax kawar guñ ci luñ ci yokk la bi ci des it baaxut ci wér yaram nit yi docteur yi saxal xam leen nañu baaxut dana am ay wéradi ci wàllu bët yu muy def yoo xam ne bu ko nit ki baree lu muy def mën naa jékki-jékki mu yàq bëtam kon baaxut bu ci sit bu fekkee nag ne boo ko defee dana tax xef yi dëgg du tooy su boobaa bu jàppee jàpp mbaaxu ndax bu fekkee luy gaar àllankoor xef ba moom mooy tooy waaye xef yi nga xam ne moom la yàlla bindoon du tooy soo jàppee su boobaa njàpp matut te bu njàpp matut boo julli julli ko du baax yooyu yëpp nag bu dajee lu fi jar gàddu ay xef man gisu baaxut ci bët lislaam da koy tere mën naa tax boo jaamu yàlla jaamu yàlla nga du baax wala yàpp naa ne bëgg ab taar bu fekkee ne ab ne ab taara ngi kii moom day laaj mu ne lan mooy àttab imaam joo xam ne léeg-léeg bu dee jiitee day ñuy mu ne ndax su boobaa mën naa ñobbi kenn mu wóotu ko wala mën naa toog continuer waaw ci mësab bi de nit bu amee ngànt ci biir julli ngànte ñaar la ngànt luy tax du mën a wéyal julli gi da koy dagg dem ni ki mu doon julli bu yàgg jàppam toj wala muy bori di génne deret sobe la day génn dem wutal kenn bu dee ngànt loo xam ne nag julli gi yàquwut waaye jiite la mën a tudd ci noonu mu wax bu dee miir ba mun taxaw ci mazhab bi ku mënta taxaw du jiite kuy taxaw suba day dellu ginnaaw dem ci sàppe ya xëcc kenn koo ko dem àggal julli moom la ci des mu àggalee ko toog ndax loolu la man du yàqu julleem keneen ne ñëw àggale julleem fekkee miir la wala jeneen wéradi koo xam daal mënu koo booleeg def ponk yi ba mat kon moom julli ko du yàqu waaye nag dootu jiite lan mooy àtteeb koo xam ne dafa lekk wala mu naan yaakaar ne jant bi sono wala bu dee ci suba gi la muy lekk di naan jàpp ne heure jàpp jotagut xam nga daa bokk ci sunnay koor teel a dog ginnaaw bu jant bi sono ginnaaw bu mu la wóoree na jant bi sox nit buy sikki sàkka sëñ ta dog buy sikki sàkka dog rek sa koor da yàqu nit dañoo sopp yeex a xëdd waaye njëkk fajar bi jot tax yooyu moom nit wóor koy def ba di sikki sàkk saa bu sikki sàkkaa ginnaaw ba nag mu am yàq yin ci ne moom kat lam dafoon nekk di baaxut kon day fay am na mu demee sax day fay kafaara ndax moo ko tey day jàpp moo ko tey kon li gën a bu gën daal ab jullit bala ngaa dog na la leer ne jant bi sono na la leer ne waxtu wi dog jot na nga dog bu yàkkamti mukk gis mu lëndëm rek nga ne xëy na xëy na boo jàpp it nag na la wóor ne boo gisee ñuy bàyyi sax ay nangam minute ngir bañ loolu ama tax fii ne bu ñuy wax jàpp jot na dana fekk léeg-léeg sax mu des dara waaye nag loolu mooy tax nit ñi bañ a àgg ci nag di jëf jëfandiku ci waxtu woo xam ne day fekk jàpp jot loolu yu mat bàyyi ndax jaamu yàlla la te jaamu gi nag ni ko yàlla santaane noonu lañ ko war a defee ab jur waru ko fay waru ko kafe waru ci jëmee nag ay nattable ki sikki sàkk ndax diine ci yàqin lañ koy ko tabax ci sikki sàkk kii moom day laaj mu ne ana yan weer moom lañu ñu taamu ngir takk ci ab sëy ak ndax am na ay weer yoo xam ne dañ naan weer yi kat taamu wuñ ko ci denc wala ko ci takk ab sëy ci charia islaam yi moom weer wu ñu wax ne dañuy tere ku ca takk ab sëy moom jàpp ma ne it yëpp weer yàlla bis yëpp bis am na nag yoo xam ne mën nañoo seetlu mag ñi ko doon tere am na xekk xikma masal ramadan mag ñi bari dañuy tere takk ci ab sëy man li ma jàpp ne moo ko waral takk ab sëy ci ramadan daa wóoru gone gu góor gu am ab seet ba bëccëgu ramadaan ñoom ñaar bu ñu fi nekkee seen koor mën na yàqu kafaara mën na leen war ñu bàyyi bu war yi ñu door leen a fasal moo gën a wóor damaa jàpp mag ñi yooyu dañu doon bàyyi xel waaye tekki ne sariya moo tere sariya moo tere takk ak sëy ci ramadaan wala ci weer sànq waaye ramadaan ak baraxlu dañoo jege ndax baraxlu it du fekk weeru weeru weeru weeru asal bi ko yooyu yëpp bu amee nit ki koor mën naa yàqu ci ci yu ndaw jàpp naa ne mag ñi yooyu taxuñu di ko tere waaye terewuñ ko ngir ne charia moo wax ne buñ ko def. jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne lan moo tax lislaam xaraamal ñuy lekk yàpp mbaam. ndax yonent yàlla Muhammad moo ne araam na ndax rijs la min amali sheytaan da xaybar la ko araamal ba ko waxee cin yañ taaloon di dañ koo këpp kenn lekk yàpp mbaam yonent yàlla Muhammad moo wax ne xaraam nañ. mbaam kër gi dafa xaram mbaam xuux dafa xaraam mbaam mi dagan mel na mbaam moo dagan ci mbaam yi muy mbaam àll mbaam àll nag mbokk yi du nekk Sénégal gii dama xam fi ay gaa yu koy rëbb mbaam xuux mu ci àll bi la ngara ngara mbaam xuux la ba demee lañ koy tudde borom xoox yëpp nañ ci mbaam xuux la lekk ko daganu mbaam àll mooy li am lu mel ni ay rëdd loolu moom góob ma ne bu amee Sénégal it bari na fi loolu moo dagan ci mbaam yi waaye mbaam saf yi mbaam xuux yi ne ci kër yi mbaam xuux yi ne ci àll ñu koy tudde ngara ku leen lekk lekk nga man ko mata bàyyi xel lu bokk euh, kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa bëgg naafila rakka yu bari wala daal lim bu baree bari ci ay naafila mu ne ndax bu yéenee benn yéene rek mën naa yóbbaale lépp wala day def ñaar rakka yu muy julli yu nekk mu beral ko yéenam waaw xam nga tarawih dañ koo daan ak genn jaamu yàlla nit ki mën naa yéene jénn yéene waaye nag du teye sopp nañ ak saa bu sëlmale yeesal yéene comme ni ko xamee ci koor bu ramadaan dañ koy jokkale sañ naa yéene jénn yéene ngir weer boobul ngànt jenn yi da ko yóbbu waaye teewut nañ guddi gu jot mu yeesal yéene kon moom bu ko jàppee jenn jaamu yéene ko jënn yéene suuf sës sësale leen baax na waaye su sëlmalee ñaar rakkaay yu ne yees talaata yéene am bañu dara aw yiw la ci kaw yiw kii moom day laaj mu ne dafa am lu ñuy tuddee coro jinne muy laaj ba xam ndax loolu lu am dëgg-dëgg la wala déet ak jullit bi ban taxawaay la war a am ci loolu. xam nga yooyu moom ci lënt yi la bokk donte borom xam-xam nee ñu jinne ak nit danañu jëflante ci àdduna ab sëy sax nee ñu dana dox seen diggante. waaye doom mënu ca am moom ndax bokkuñ tabiya loolu la mu xàq ko ni wax am maa wax ne daa am faru rab lislaam bu sukkandiku ci loolu ndax boobaa jigéen mën naa dem fe taxawaalu ba noppi ñëw ni faru rab la moo tax yu mel noonu lislaam du sukkandiku ci mel noonu waaw moom ci zahir la ñuy atte zahir la wax di ko atte waaye daal teewut borom xëy di wax ne jëflante moom ci diggante nit ak jinne dana di am di jàppalante ci ay mbir ndax jinne yi am na ci ay jóg ay jullit ñu gëm am na ci it ñu sàggan nag ñoo xam ne ñooy def jaaxu bi waaye nag dañuy wax ne doom moom mënut am seen diggante moo tax ku ko woote it duñ ko jàpp. kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteeb ku fàtte benn farata ci faratay julli ak kooku fàtte lan moo koy war. waaw benn farata farata julli fekkee sëlma la gudd rakka ba farata ja lay bàyyi yokk benn rakka. bu doon ab sujjóot la wala ab rukkoo bu sëlmalee nag toog lu yàgg julli ko day yàqu na kooku day jóg julliwaat julli ko ndax farata moom dee su ko jangee ay suju sujjóot sujjóot yi ñuy wax sunna lay jang waaye du jang farata kon ku bàyyi farata boo sëlmalagut wala ngay door a sëlmal mën ngaa jóg yéwénal ko da ngay bàyyi rakka booba indi beneen rakka boo defee sujjóot wax de salaam bu yàggee nag julli ko day yàqu kii moom nee na dama seetlu ne imaam bi bu dee julli suba ci rakka bu mujj bi su jàngee fatiha jàngalam cay teg day am diir bu muy noppi nee na muy laaj ba xam noppi googu lu ko waral ak diir boobu imaam bi noppi maamum bi moom lu muy def ki topp ci ginnaaw waaw noppi googu bu ci masab Malik lu ñu sopp la ndax dañ ci jàng xunóol ci masab Malik julli suba yépp ginnaaw rakkab ñaareel bi ginnaaw fatiha saar njëkkuru ko wala sax ginnaaw du koo léeg-léeg day jàng ñaanu xunut ñaan googu nag ilimaan ak maamoom ñëpp lañ bëgg ñu jàng kon kenn ku jil dana ko jàng bu dee ilimaan da koy yalu waaye su waaye maamoom yi dañoo déglu mu jàng fàtteeku saar bu tàmbalee yalu nag ñoom nañ yelu jàng xunut xunut boobu nag luñ sopp la bu ko defutoon nag du yàqu dara ci julli gi te du ko sujjootaleen nag waaye su ko woon ba rukkoo bu siggee man na koo jàng dooru sujjoot na koo jàng dooru waaye nag bu ko fàtte woon ba sëlmali du wàññi dara du yàq dara kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci koo xam ne day liggéey ci benn station nee na am ku ñëw yor benn bon boo xam daal fukki litre moo ci war a nekk nee na waa ji na ko jox ma juróomi litre ci gasoil wala essence juróomi yi ci des nga jox ma ko ci xaalis waaye nag waa ji liggéey nag day am benn pourcentage bu mu cay am su su ko joxee juróomi litre yow ci xaalis muy laaj ba xam ndax loolu dina dagan wala déet. waaw moom de bu fekkee ne jaay gaasuwaal lañ koy def loo waaye ji indil ko ab bon boo xam ne gaasuwaal a ci ne daa mel ne moom jaay gaasuwaal moo ko war waaye day mel ne foofu daa jënd gaasuwaal ndax bu dee fukki liitar mu jaaye ko juróom yi yeneen juróom yi mu ne ko jox ma ko xaalis kon day mel ne lu mu waroon jaay la mu jënd ko moom bu fekkee am na ci ndigalul këyilif barab ba de nga ne moom moo bëgg jënd loolu am maa lam cee jëlee nu muy tudd xaw ma ko nu muy tudd ndax bu fekkee ne da ko koy neexale ngir mu nongul ko ko ngir ak boo liggéey loolu ger la dëgganut bu fekkee ne it day doon loo xam ne moom dañ ko faa teg di ko jaayloo gasoil jaayut gasoil bi xanaa bàyyi fa gasoil ba lekk ci xaalis ma ngay tooñ boroom kër gi koy liggéey la yooyu yëpp weelante la amaa nag bu fekkoon borom borom liggéeyukaay moo ko may loolu xamal ko ne ku andi bon man nga koo jënd ndax ba day mel ne rek borom boo bi daa jaay gaasuwaal bi xëy na bu ko jaayee nag jaayee ko njëg gu yées giñ ko baaxoo jaayee comme moom moom gaasuwaal bu ko neexee jaayee ko na leer ne moom moom jaayee lañ ko def la waaye kenn néew ko jëndal gaasuwaal kon bu jëndee gaasuwaal ci lu ndigal kilifaam damay jàpp loolu du du rawatina nag mu am ci xaalis boo xam ne dañ ko doon jaayal gasoil bi jaayu ko ba pare récupéré ci xaalis loolu leerul ci ci man jàpp naa ne du lu dagal euh, kii moom day laaj mu ne lan mooy atte ku nelaw laata waxtu yu dog di jot dan yàlla dogal nag mu sarala di nelaw ba xëyaat ci bëccëg bi door yeewu mu ne ndax kon bu yeewoo day dog wala day continuer koor gi ah bu fekkee ne ba muy um façon na yéen war weer wi yow day wor bu dëggee ci lu ngant na fay kafaan ah, nelaw yooyu mu jaaduwutoon ah, nelaw ba saral loolu bu jaaduwut xanaa fam nekkee néew fa mais bu fa nekkee sax jaaduwut nit ñi di ko bàyyi muy nelaw di saral loolu wóorul ah, loolu moom tuyaa bu ji bare bare xam na ko boppam bare bare ndax dañoo bëgg jàmm su wooree woor du ngant mbokk yi ba lu baax li nga doon nga di ko bàyyi wala nga di ko wàññi da ko yokk nit ki boo waree daa war a am bu mag ci ruuxaaniya bu tax mu gën a mën a def lu baax ay wuru ko wàññi ngir koor yi waaye jàpp boo waree da nelaw moom bu bëccëg bépp dañ bu ñuy dog dañ lay yee kooku lu ñu wax ne wóorul de ci sariya waaye nag yiw bi ñuy séenu ci koor moom du ca bari la ci bari la hmm. kii moom day laaj mu ne ndax dagal na ci jigéen mu ziyaare ay armeel jigéen saari armeel day wax yu bare jàmm waaye li ci gën a lëng mooy dañ koy tere donte nag xadis bi ci rot daa wax ne laanallaahu zawaaraatil qubur yàlla rëbb na ñiy ziare ay bàmmeel zawaaraat nag dañuy wax ne siixatu mubaalaxa la maanaam ñi fay dem lu bari ñooñu dañuy wax ne bu fekkee bariwut lu mu fay dem nga xam ne xëy na léeg-léeg la te buy dem dana yor melokaan bu ñu sant ak jullit bu mel ne suba mën naa dem armeel waaye loolu jafe la bi ci des it euh, li ñu yóbbu ci armeel dëgg-dëgg dafa yóbbu nit indi sam daa waxoon ne tere woon naa leen ko léegi dee léegi def ndax day fàttali bàmmeel bu fekkee day fàttali alaxira bu fekkee nit ki bu fa demee daal fàttali ko léeg-léeg jigéen dem ci armeel yóbbaale fa ay jooy yoo xam ne bu génn day tàggu sa ko ñooñu waruñoo dem ci armeel koo xam ne melokaan wa ci ni mu toll ni wala la mu takk bu dee ñu waaye bu sart yi dajee nag nga xam ne melokaan bi ak jullit bu jigéen war a mel suy génn mel na ni te bariwut bëriwut lu mu koy def xëy na su boobaa xadis bi ñi wax ne zawaaraat ma foo mooy kon bu dee ay zairaat te bëriwut loolu mën nañ ko doon waaye daal euh, lor nekkut ci ñàkk def ci moom maanaam ñàkk dem ci armeel yi jigéen lor nekku ci bu dee ku faatu mën na koo ñaanal fa mu nekk lu mu ko ñaanal ci wax dana ci jot bu ma nee matal sàtt yi nag léeg lekk mën na fay dem su boobaa waaye nag na xam ne bañ faa dem moo gën ndax ay risques yu ci dem bi te ñàkk faa dem amul lool kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteeb ki toog ci diggante ñaari rakkaay yi toogaay bu gàtt waaye ni na loolu tëyu ko daal waaw toog bi bu fekkee ak daal amu ci dara nekku ci ndax daa am ci ngir yi ñuy wax ne jalsatul istiraha day am ci diggante rakkaa yooyu nga xam ne ñoom bu ñu jógee ci rakkaa bu njëkk dañuy toog tuuti dóoru jóg bu ñu jógee ci rakkab ñetteel noonu waaye ki ko def te amul ak dal nag dara wër ci ndax doole duñ ko tudd dolli waaye bu dal amoon nag ak doole lay doon day sujjóot kii mu ne lan mooy àtteeb jigéen joo xam ne dafa nekk ak boroom këram waaye mbir yu ndaw ndaw daal day tax mu mer gàddu ay bagages mu dem kër yaayam. kooka damaa jàpp ne dañ ko waajal lu tuba bi sëy si ak sëy mbokk yi mag ñi dañ ko doon jàng di ci tàggat ndaw li di ko ci waajal bu mu doonee xale dañuy tàmm mooy tax bu demee kër xam ne ci mas ron mas uuree la nekk. xam ne jaamu yàlla la dafay dafay dafay liggéeyal si yàlla day faggu ak njaboot day day day day day day sàmm suma aw ay bokkam waaye yooyu yëpp nag bu fekkee nit dafa màgg judd bu màgg kenn jàngalu ko yépp mu nekk kër baayam lu mu bëgg ñu defal ko ko saa yu meree ñu neexal ko kooku bu sëy it day jàpp ne na loolu deme moo tax doom ju jigéen dañ koy yar ginnaaw xam nga ne li ngay ñaan yàlla mooy mu tàggoo yo dem sëy fexeel bi fu mu dem du dellu si bu demee dellusi demaat dellusi sikki sa ci yow la ndax yaa sa doom yaa ko jagalu te nit nag melu nen kullu mawludin yuladu alal fitra nit melu nen ak mën a baax lay judduwaale loolu ñu salaam wax fa abawaahu yu hawidaani aw yu nasraani aw yu majisaani ah ni muy mel ay way juróom waa maa ñi taxaw taxaw ñoo ko ci def kon mën nañ koo yar ba bu demee kër du dellusi bokk na ci li ñuy tagg jigéen ñi diw fay bu mbokk mosuñoo fay mosuñoo fay moom mu dem ci kër ñaari baat ñett mu fay dem kooku jëgut kon dañoo war a yar doom yi ba nga xam ne bu demee ci kër ndax loolu ab xeex la ab ab guerre la jihaad la jihaad la bëgg wax ab say jihaad la da ngay liggéeyal yàlla ci sa bët sa kër borom kër muy metti di tàng di dëgër ngay muñ ngir bu ëllëgee nga am dara am yiw am aljanna waaye kuy def bu tàngee mu daw moom du dara loolu nag dañ ciy tàggat nit ki yar ko ci moo faw ñu yar jigéen ñi ñu xam dañoo war a sëy ne ci kër di sëy waaye daf leen ay ay ay ay ay ay prince ay princesse euh, doo leen defloo dara te buñ demee kër mënuñ dara ku leen tudd nga bëgg a mer fekk yaa def lépp loolu lu ma ta bàyyi xel mbokk yi kii mu ne moom ndax dagan na ci jullit ñi ñu dajaloo ci lu mel ni Europe ci benn barab ngir dafa ay ndogu mu ne waaye barab ba dafa am màndarga muy wane màndargam nguur jigéen waaw xam naa bu dee ay jullit daal yu dayee ci barab di ngir yàlla loolu dara nekku ci ndax màndarga yooyu moom nit ñu bari ñu ngi koy wax naan màndarga yi góor jigéen la waaye ñëpp ci nit ñi dañ koy romb dem seen yoon du ci nekk xamuñ lu mu doon xëy na mën naa am ñu koy def nag am na luñ ci jublu waaye li am solo mooy yow miy def ak lii la tax di def bu fekkee daal mën nañoo am barab boo xam ne sikk sàkk amu ci lenn luñ fay sikk néew fu moo gën waaye su mënta am nag barab boo xam ne ñoom dañ fay dajee dafa def lu baax di defar ay ndogu jullit ñu di ko lekk ngir yàlla luñ fa taf loo xam ne dañ ne mandargal nangam te ñoom seen yoon néew ca wóor leen ko yàqal ñoom ña ko gëm nañ nañ ca nekk am lu bon yow ngay dox ay ndogu di lu baax am na ci barab yoo xam ne ay dañu ko yomb fa te moomoo ko it nag yili foo foofa barab yi ñu mayee ñëpp lañ ko maye kenn koy dafa indi sam njaay kon yow la nga fa moom fexe ba jëfandikoo ko la nga fa sañ ci anam gu dagan rek ay ci des sa yoon bañ caa nekk laaj bi ñuy mujjee day laaj ne lan moo tax yenn jàkka yi su koor gi ñëwee bu ñuy naafile day fees waaye bu ñu dee julli waxtu juróom yi ñaari nit ñi du ko tax a bari lool. loolu moom bokk na ci li jaaxal ñëpp jaam ñu bari jaam ñu bari bu ramadaan dikkee dañuy bàyyi xel yàlla bu ramadaan jeexee ñu fàtte yàlla dañuy fonk jàkk di julli waxtu juróom di julli ci ajjuma di naafila di jàng alxuraan di jàng xasida waaye fu ñu nee taafeer ñu laf yëpp loolu de loolu bokk na ci màndargam amoo xabul dañuy wax ne bokk na ci màndargay koor gi nangul nañ la ko yu baax yi ñu ci tàmmi woon bi ramadaan jeexee nga wéyal waaye boo tàmmee yu baax ci ramadaan mu jeex nga sànni yépp xamale sa ko kenn nanguwul wala mën naa moytu te it nag waxuñ ne na ngay wéy ci même kii bi waaye nag waxtu juróom tàmmoon nga ko ci koor fexeel boo yël ko julli jafewut te foo nekk jàkkaa nga sawet bu jullite nga dem julli fa julli mbooloo gënee na julli kenn ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar booy dem ak dikk jéego yi dañ la koy bindal ay tuyaaba yiw bu toll noonu ak julli ko xañ boppam waaye bu ramadaan dikkee nga baax lool bu ramadaan jeexee nag nga dellu fa nga woon loolu nit ki koy def day mel ni moom yokkuwut te nit bu yokkuwut day wàññi moo ab lël la war a doon ci nit nga fi yokkoo yiñ fi jële ciy baax bu jàllee bu mënti tëy yëpp tëy ci yu bari bu benn ramadaan ñëwee nga tëy waa di bari bu yàggee rek kenn du la gën lañ soxla ci am jërëjëf sëriñ bi kon day mel ne loolu mooy laaj yi firatoon ratoon xanaa ñu bàyyi nga tàggoo rek ñu door a tëj ok jërëjëf sëriñ si xanaa di dal bi nuyu mbokk yi di leen ziara bi ñaan suñu borom dafa ñu dégg ak topp di wax ne lii laayante biir la rek ay jullit buñ bokkee dañoo war di laayante biir kenn ku ne laa biire morom ma pët jam ko tane mu di ko ci dimbale ci waxtu yëpp jamono yëpp béréb yëpp waaye rawatina ci kon jataay yi xam-xam am solo la nit ñi di ko teewee ak di ko topp ak di ci jariñ waaye di ci jariñe sax ba mu yaatu ndax bari waa na ci nit ñoo xam la def ci ab safaan ñàkk xam moo leen ci dugal saa bu ñu xamee noonu dañ ko bàyyi yàlla na yàlla defal ndimbalal tawfiq may ñu jàmm dimbale ñu ba lim digg ci weer ñu man ko waaye lim ci digg lépp yàlla na ko yàlla defal barke sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, jërëjëf sëriñ bi ci tontu yu leer yi nga xam ne indi na ko ci laaj yi nga xam ne ñu ko doon ñu ngi ñaan suñu borom gën koo dëgëral gën koo kattanal ñu di ko sant ci turu daayira Muqaddamatul Xidma di sant mboolem ñi nga xam ne ñu ngi teewoon ci jumaa ji di topp waxtaan wi. ak ñi nga xam ne ñu doon topp waxtaan wi ci bitti jumaa ji kon suba insha allah ñu ngi fas yéene waxtaan ne jëflante yi ak lable yi nga xam ne banque yi ñu koy def yooyu lu ko lislaam gise Serigne Souhaïbou Diop moo ko war a waxtaane nekki noonu ba tey bu bëgg indi ay laajam ci jataay bi mën naa jokkoo ci numéro yi 77 678 57 66 77 678 57 66 wala 77 0 72 94 76 77 0 72 94 76 ku ci jokkoo ñoom yónni sa laaj dina ak si jotaay bi incha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal